foofu la amoon place doon fa jaay mun xam ne lan mooy problème mu marché bi li xam seen problème nag moom moo ko laatuloo ah. baax maw war na ko yoon ah. jàpp leen te bàyyi waaye nag bu leen wor surtout surtout leen wor kan nit day wax dëgg ah. bu leen war seen nit jëwal mooy ñii ibba daa def lekk sax bu ko daa def naani doom soog a lekk mën a recevoir nit ñi kon nag bu leen wor de wax naa leen ko de bu

Euh, li tax ma ñëw ci marché bi tey mooy marché bi day sama moomeel fii ma taxaw ni tey cantine bii sama ginnaaw maa maa fi nekkoon bi muy bi Iboy def extension bi muy di pare 54 cantine numéro 1 bi man maa ko yoroon donc man maa fi nekkoon donc loolu mu séqoon ak waa marché bi coloré séq ak ñoom lu yaatu loo xam ne loolu poussé na ma sama xel ma ne balaa may dem fenn ma ñëw ci ñoom seet leen waxtaan ñoom saafante ak ñoom xamal leen suñu ay bëgg-bëgg ak lu ñu yëkkati pour ñu mën ñoo jàppale ci li ñu jëm ñëpp génn loolu dara dara mënu ko fay mbooloo bi ñëpp génn nañ kenn desul ma ma leen di sant euh, ci accueil bi ñu ma parce que accueil bi bett na ma man jàppoon naa ne sax du àgg fii waaye kenn desul mag ndaw góor jigéen ñëpp kar ma fu ma jaar rek ñëpp bëgg ma ñëw ci ñoom loolu dama leen koy sante xëy na lu ñu lu ñu lu ñu seqoon man ak ñoom démb la tey soog a ñëw ma di la xam ne vraiment marché bi moom sama marché la gis naa fi lu bëri dégg naa fi ay nemet mais lu mu ci mën da am li ñuy wut bu ñu ko suñu borom bu ñu ko suñu defalee lu ci baree bari dana saafaraw marché bi rek ni mu mel bëgg nañ ku leen ko bëgg nañ ku leen ko defaraatal ku leen ko jubbantil taxawaay des na loolu loolu yëpp dégg nañ ko mais liggéey la boo xam ne dafa laaj dafa dafa laaj dafa laaj xam-xam laaj xalaat su yàlla defee li ñu wut ñu am ko danañ ci toog ak ak. dinañ ci toog ak ay ak ay experts ñu waxtaan ak ñoom ñu xool naka lañ koy doxala ba kenn ku nekk mën a gis sa bopp ci marché bi marché bi mën a aw yoon ñi nga xam ne a tabax te tabaxuñ ko danañ xool ci yan norme lañ koy teg ba loolu yëpp mën a sotti mën a kenn ku nekk mën a gis sa bopp ci marché bi toll fu ñu ñu tax a jóg du ñu bàyyi fenn du ñu bàyyi kër du ñu bàyyi koñ du ñu bàyyi marché du ñu bàyyi place du ñu bàyyi garage fépp la ñu dem suñu sañoon daal li nga xam ne moo ñu tax a jóg ñëpp dañu ko xam tey siidi li nga xam ne projet la bu Ibba amoon muy marché bi mooy dañoo dañuy xoolaat cantine yi fi nekk nan la ñuy def ba def ko étage loolu tamit amoon na ay xalaat yoo xam ne jotoon nañ ci jub loolu dinañ ci danañ ko bu ñu yàlla may ci gëstu comme ni ma ñu xool ñu def étude yi su fekkee ne maye nañu teg ko ci kaw danañ ko su fekkee mayu a teg étage ci kaw ba nga xam ne place yi dana mën a doy nit ñi mën a gis seen bopp ci marché bi daañu ko def